nataal juróom bu ñu ñàkk dee dégg di yàlla aadama ak awa jóge nañ ci toolu àjjana boobu aadama ak awa di liggéey liggéey bu metti ndax seen dund loolu la leen yàlla daane woon ci seen ñàkk déggal ko aadama ak awa xaajaloo nañu ak yàlla ndaxte aadama ak awa ñàkk déggal nañu yàlla lu bon luy jóge ci seytaane dugg na ci seen xol ci bés boobu ba tey lu bon jaare na ci seen biir xol dugg ci nit ñépp ragal soxor fiir ak xuloo iñaan ak mbëggeel ak lépp lu munta doon jaare na fa dugg ci biir àdduna si aadama ak awa am na ñaari doom mag bi mu tuddoon kayin bëggul woon rakkam abel daf ko fiire woon benn bés kayin mer ba rey abel mu doon reykat lu bon mën na am melokaan yu bare